KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaar yu wër te leer kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabili كأنهم بنيان كأنهم بنيان مرصوص الله أكبر góor jigéen du fi am góor jigéen du fi am góor waaw dama ne est-ce que bi ñu ngi fi nañu booloo ñu ni góor jigéen du fi amee baat góor jigéen du fi amee baat ndaw nañu wax bu baax pour xam ni dañoo gëm li ñuy wax góor jigéen du fi amee baat ok dañoo bëgg ñun ndaw yi ñu xamaat ni ñun dañu war a continuer gën a talone suñu paa yi pour jàppale ci xeex bi parce que ñoom maam Ahmad Bamba dañ ñu liggéeyal ñoom maam Maodo Malick Sy dañ ñu liggéeyal te ñun waruñu def ginnaaw léegi li ma bëgg ñu xam ko mooy état du Sénégal day tappale Macky Sall day tenir double discours te ñun jeunesse bi dañu wara a xam lool il tient deux discours différents su ñëwee fii mu ñuy article 319 alinéa 3 acte contre nature est-ce que loolu day condamné homosexualité amul layam lay mi pas besoin de tirer à longueur son gouvernement, il connaît très bien qui sont les étudiants de l'université Cheikh Diop. Nous voulons directement parler à la communauté internationale, au lobby maçonnique, à l'oligarchie mondialiste, aux forces obscures théoriciennes de nouvel ordre mondial, que la jeunesse étudiantine, la jeunesse sénégalaise, a sonné la fin de la récréation. tey waxkat yi dëgg ñi ngi teew alaaji saa njuubu mbeng so ay bu jóob ak mboolem ñi nga xamante ne ay activiste lañ wala ñuy kàddu yi dëgg di ko wax ko ku leen xam ne ñuy peuple bi la ñuy wax di mane seen combat ak sàmm jikko yi ñu ngi teew mbokk yi Karim teew na dalal leen ko Abdou Karim Abdou Karim salaamaaleykum salaamaaleykum Sénégal moom am naa yaakaar ni non euh, góor jigéen du fi am loolu lot na ay nopp mais li ñu war a def mooy wax ko ci nasaraan ndax tubaab bi dégg tubaab bi ñooy xeex bi déggantaan mooy non à li ñu war a wax mooy non à l'homosexualité loolu laa bëgg dégg gars yi non à l'homosexualité na ñëw non à l'homosexualité alhamdulilah man ñetti mbir laa bëggoon wax bi jiitu imam Alioune Badara Ndao la te alhamdulilah fii mokk na lu mu wax loolu ci sori sama xol dafa sedd ma gisee yéen xam ngeen valeuru imam xam ngeen valeuru valeuru diine te ngeen bàyyi kenn di fooyee suñu diine ndax saa bu ñu jàppee góor jigéen du tëdd une semaine ci kaso imaam bi tëj nañ ko ñetti at ci kaso bi kon nag fulla ak fayda ñu ñoo ko amal suñu bopp keroog bi ñu woowee Sonko ñun ñëpp a wàcc ànd ak moom bi ñu woowee Barthélémy Dias ñun ñëpp a wàcc ànd ak moom woo nañ imaam Ndao ñun ñëpp dañ wàcc ànd ak moom te kii nag moo gën Sonko moo gën Barthélémy Dias ndax day jàngal alxuraan day jàngal alxuraan alxuraan ay jàng beneen bi si topp lu yomb la lu simple mu nekk lu am solo loo xam ne mbëgg Sénégal yi bàyyi ko xel sama gars yi ak déglu ak déglu s'il vous plaît un peu d'attention s'il vous plaît ma ne bërëb bii ñu taxaw ñu koy wax obénite Dakar

le 28 incha allahu rabi tribunal na mel ni màggal Tuubaa bu fa kenn xëy jërë li li nga xam ne mooy ngóor jigéen ci Sénégal ko def ñu teg ci yow daan yi ñu war a teg daal lay teg xaalis amande bi nga war a fay su ko defee kenn ku nekk ragal koo def góor jigéen yi nekk seen biir kër di def lu bon loolu seen diggante ak yàlla la mais asanda bi nga xam ne ñu ngi koy jàngal suñu njaboot gi suñu doom yi suñu set yi nga xam ne ñoo ñëw ëllëg ñun kaasatuñu suñu bopp xeexaluñ ci suñu bopp dañuy def li ñu yàlla sant mais ñu ngi koy defal suñuy njaboot. dama ko bëgg a xamal ni nit ki melul ni muy waxee ni muy jëfee la mel nit ki melul ni muy waxee ni muy jëfee la mel déggoo leen ma de l'homme n'est pas ce qu'il dit kon dama bëgg opinion nationale et internationale ñu xam ni une nouvelle banc a soufflé l'Afrique souffle une nouvelle banc te Sénégal du ci jël ndaare bukk ba abadan wala di ci jël ndaare yi où est la jeunesse il faut savoir dire non il faut savoir résister ko liñ bëgg mooy nañ def loi boo xam ne waxuma sax ñu condamné tëj góor jigéen waaye képp ku ko fi def dañ lay rey ndax loolu yàlla def No gay in Sénégal. Sénégal. No gay in Sénégal. No gay in Sénégal. No gay in Sénégal. ñii ñooy sénégalais. sénégalais nitu lañu. ñun diine lañu gëm. ñu ngi ñaan ñi ñuy gouverner. ñuy sóoraale loolu. bu ñuy tëral ay loi wala ñuy signé ay convention ci bi réew nañu sóoraale ne ñun ay nitu ngëm lañ loolu dong moo mën a am jàmm am ma ne la woon na la woon wàññi na la na du ñu nangoo lu dul way gëm ñuy gérer seen réew ñoo xam ne lu fa bon lu nekk dañ koy xeex génne ko fa moo tax dañ war a wax mooy ngóor jigéen du fi law ngóor jigéen du fi law ndax ngóor jigéen du fi am itam nag xaw naa exagéré tuuti waaye ngóor jigéen moom du fi law ñu ngi ñaan kon suñu gouvernement yi ñu bàyyi ñu xel jàmm am pexe yi teru ko li gën a noppale mooy ñu comprendre ñu nañ ñu comprendre ñu yàlla ñun jàmm rek lañ bëgg dañoo bëgg réew moo xam ne réewum jàmm la réew mu yiw réew moo xam ne lu baax rek lañ fay def su fay def lu koy dem daf koy loolu mën naa nekk loolu mën naa nekk ndax nekk na ci yeneen réew ñu Sénégal yi ëpp ay pas-pas kon daal jërëjëf jëf jërëjëf jëf mujjewuleen pousa bi mu réer seeni maam nii lañ meloon di bañ lu la leen ci fekk fekk la yéen di bañ lu bon te la leen ci fekk yéen jël asalaamaaleykum wa président Macky Sall waxal ak député yi ñu voté suñu loi وأتي بالأرواح والريحان جزاك الله يا رسول الله بل وجزاك يا حبيب الله وكيد فملني سيدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمنا لم ndax li taxoon yonent bi ñu àmbaar góo ko li taxoon yonent bi lu mu mënoon doon ci coono yooyu rek jikko yi taxoon yonent bi daj ko pour ñun tey jikko yooyu delloo ngeen ko njukkal kon lii daal tey dañuy wax ni jazakallahu ya rasulallahi jazakallahu ya rasulallahi bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñu ngi leen di ci naaj bu tàng wi waaye li muy teg tamit rek mooy seen détermination ak bëgg bu ngeen bëgg seen askan feeg ñu ngi gis lu mel nii nga sànni sa ba mu ay kawar yu ñuul rek ngay gis suñu yaakaar dafay gën a dëgg ci ne réew mi incha allah lu fi nekkoon ci loo xam ne ay mbuxum la ndaw ñii ma gis danañ ko lijjanti incha allah ñun nag ñu ngi wax ci turu coordination départementale yi yëpp moom lañ ma sant ma wax ci seen tur euh, suñu xol sedd na buy ci gis ay ndaw ay mag ay góor ay jigéen ci naaj wu tàng wii ci karo yi ay xale yu tuuti toog ci karo yi kenn fayaguñ leen ngeen ñëw ci kenn ku nekk poosam la waxtu bi muy ñëw ñu bëri ci yéen jaaruñ ci ndekki waxuma nag añ kon lii damay tegtale mooy Sénégal am na ay doom yu pare pour aar ko insha allah léegi nag président de la république ñii say njaboot lañu dañu jóg pour libérer la ci lobby yi nga xam ne ñoo la imposé imposé suñu assemblée nationale lii nga xam ne mooy agenda LGBT bi nga xam ne moom la ñu commencé di ko lawal ci askan wi ndaw ñi mag ñi góor ñi jigéen ñi dañu jóg pour libérer leen yéen gouvernement bi dañu jóg pour libérer leen yéen ñi nga xam ne yéenay parlementaire yi bokk ci DGA ndax xam nañ ne amuleen leen ci bañ ko waaye nag am ngeen jaboot goo xam ne am nañ kattan ci bañ li leen di noppal mooy image yii na ngeen ko jël wan ko adduna bi lépp wan ko lobby yi yëpp wane ne la ngeen jëloon engagement ci suñ tur tàgguwu leen ñu ñun ñi ngeen ko jëloon ci suñ tur làgg nañ ñun ñi ngeen ko jëloon ci suñ tur lànk nañ bu ko defee liy sàkku ci président de l' assemblée nationale proposition de loi bii nga xam ne daf ko rejeté nañ ñaan nekkoon na koy jël teg ko ci loxol président de la république balaa fukki fan na ko delloo siwaat ci loxol ñu gunge ko ba yóbbu ko plénière député yi ànd ak peuple bi feeñ député yi nga xam ne nag dañ fi nekkal ay ñeneen ñoom itam ñu mën a feeñ mënuñu wax nag ba noppi te jërëjëfaloñ suñu mbokki député yi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Mouhamadou Lamine Diallo député yooyu Sénégal dootu leen fàtte mukk député yooyu xaw nañ wane seen bopp ne askan wi lañ fi nekkal jërë ngeen jëf waaye wallahi du ngeen wéet ci bi du ngeen wéet ci combat bi incha allah ñoom yéen ñoo proposition de loi bi ba dañ koy jàllale ak plénière ñëpp teew ñu xam ñi fi nekkal askan wi ak ñi fi nekkal ñeneen ñi xale yi jërë ngeen jëf dañuy door a commencé nag lii lu tuuti la journée bi dafa nekk benn journée bu historique man day gëm naa ne tey fu mag mu baax tëddoon ci réew mi kontaan na ci bis bi li tax li tax ñu wax ko mooy boo demee ci alquran fi muy waxee ne wa qul i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduuna ila alimi alghaybi walshahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun imam ahmad ibnu hanbal dafa wax benn xadis nettali ko ne inna a'malakum تعرض على عشائركم وأقربائكم إن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تردهم حتى تهديهم كما هديتنا منام لا يبي دفعي وحنا سندفي سندفي نيجن تيبيتي يبقي قارل يلا يلا كتاك بتب منام فوق سنبا جومني بقوحي دمنا يلا كتاك جسم وإن يبقي قارل رسول الله sallallahu alayhi wa sallam honneur la ñu gaaral ñu tey ci kanam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu teg bëtam ci ñun waaye ñu ngi koy gaaral ñu ñu baax ñi fi jaaroon ñëpp sunu maam yeeg sunu baay yeeg sunu sëriñ si moo tax ma ne kontaan nañ fañ tëdd lii nag nga xam ne moom la sëriñ daam wax la woon woon ni na La na Notre nous Afrique africain Nam naam koppar présence militaire étrangère Nam naam ci France Nous français bi ñuy de la naam ci walu FMI ak Banque mondiale bi ñuy wax nak budget bi itam ci walu culture ci le chosan ak tu vois walu valeur donc homosexualité ak agenda pro pro LGBT foog ñu jàpp nous ci nous bi bokk ñun ko nangu. dégage ni ñuy armée étrangère dégage ni ñuy waxee FMI banque mondiale go home Nous la pro LGBT dégage. le Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah jëmm ju tedd ji Cheikh Abdoulaye Dieye Yalla yalla yok leeram te doom ju baax bi Cheikh Bamba Dieye nek fi dama ko bëggona lepp bu am solo bobu te bokk na ci li gëna ñongal jotaay bi Allahu wahidun Allahu wahidun Allahu wahidun yàlla yàlla barkeel jataay bi barkeel na ko ba noppi ndax ñu yég ko ak ñu ñàkk ko yëg malaaka yërmande yi ñu tiim ku ci nekk ci ñun gi ngi lay bindal yiw ndax da ngeen dog seeni ngir mën a dëggal xaala xaala rasulullah yal leen yàlla fay naaj wii tiim leen yal ko yàlla soppi ngelaw ci àjjana firdaws si kooku ngeen tudde léegi <laughs> waa liste bi naa ko génne naa ko génne danaa ko jox Ababacar bi <laughs> euh, ki ngeen tuddee léegi muy suñu borom subhanahu wa taala moom moo jëkk a criminalisé jigéen suñu borom criminalisé na ngóor jigéen ci suratul Ankabut criminalisé na ko ci suratul Uhud Criminaliser na ko ci Criminaliser nos potes, qui sont ci à anbiyaahi suñu mbokk wa pouvons bi ci seen téere bi ñuy wax Lévitique Criminaliser nos chapitre 18 verset 22 un coucher avec un homme comme on couche avec une femme est une abomination Voyons, yow criminaliser nga vol à main armée ba ñuy criminaliser bi volontaire assemblée nationale la woon coow amul ba ñuy criminaliser trafic de drogue assemblée la amul ba ñuy criminaliser viol coow amul waaye ñu ne dañuy criminaliser góor jigéen ñoom ñëpp ñu jóg firi seen laaf yi ci saaga ak di xaste kon am na lu xew am na lu xew am na lu xew alors boo jógee nag nga nekk njiitum réew nga ne tàngamaa ngi fi kenn du ko daganal ba pare fop fukki association góor jigéen ak juróom benn jox leen ay lijaasa ay ay récépissé kon daganal nga ko ba noppi naka ngay mën a wax ne du ma ko daganal te sa ay député nekk ay membre PGA Parliamentarian Global Action muy kuréel bu Nations Unies samp lan mooy seen mission protéger

combat bi bu leen defee ne combat and sama jikko rek la déedéet ndax xam nga ñi protéger góor jigéen ni ci yan pexe la ñu ne te xam ngeen ci dara moy li tubaab bi wax un renversement des rôles manam saxé ba ñuy xeex góor jigéen ñom ñu mujjee criminaliser képp kuy jóg ne yaa ngi leen di xeex yéen presse bi xam ngeen ci dara article 18 code de la presse nee na journaliste bi fi jàppati ngay wax ci góor jigéen naka suñu non yoon dana dal sa kaw kon agenda ba ngi seen kaw euh eh. eh, ma bëggal wax ñaari baat ci suñu coordonnateur Ababacar Mbour Ababacar Mbour ayadaha allah wa amrahu wa nasara sakul ben ndombal tan Ababacar Mboup ñun ñoo ko doyloo ci xam-xamam ñun ñoo ko doyloo ci tegginam ci yaram ci patriotisme ak ci fitam jiital ko mu coordonné 145 organisations de ànd sàmm jikko yi dama bëgg ngeen tàcc ko spécial. bu leen ko tàcc yem si bu leen ko tàcc yem si ko ñaanal gis ngeen keroog def na ci page Facebook dafa am fu mu gaare woon otoom ci mission bañ ko sant moo ko waxal boppam te daf ci indi ay firnde mu ñëw di démarré waat oto bi dawagul sax cent mètres oto bi yëngatu ñu gaare fekk deux roues avant yi ñu denc si écrou yi ñab ñabal ko benn roue arrière bi ñu denc si écrou bi ñab ñabal ko li suturaal Ababacar Wout bu ko fekkoon muy daw cent à l'heure dañuy jékki-jékki ne oto ba këpp na musiba amna comme ni oto Abdoulaye gey Gogo musiba am waaye leeragu Ababacar kon ñaanal len ko yalla sàmmal ni ko yalla ñu ko yàlla aaral Ababacar bu dama bëgg ngeen suñu borom yalla nga ñu aaral Ababacar bu euh, legi nak dafa am lu ma Ababacar Mboup déñ Ababacar nga baal ma ma violé euh, secret bi ma wax du secret sax ndax waxtaane nañ ko réunion ndekete yoo proposition de loi bi boo leen gisee ñu galgal ko dès dès dès la porte d'entrée de l'Assemblée nationale xam ngeen lu mu jógee bureau ba dafa waroon dem commission des lois lu jógee commission des lois dem plénière ndekete ñoom seen ci jàng yépp moo doon mu bañ a dem plénière xam nga lu tax dafa am ay député Benno Bokk Yaakaar yu bari yu oo Babacar moom ci ci ci ci secret nee ko ñun mënu ko ñëw fës waaye bu proposition bi ñëwee plénière rek su boobaa ngeen xam ne dëgg-dëgg la ci la ñu lal seen complot mais il faut tout pour que proposition de loi bi le bureau ñu bloqué ko loolu mooy réalité bi nañ ko wax c'est l'occasion nag député yi nga xam ne fas nañu seen fit ànd ak ñun ci xeex bi tuddaguñu leen

ak député Macky Sall yi wan Macky Sall ginnaaw te ñëw muy euh, euh, euh, Cheikh Aliou Souaré ak Abdoulaye Wilane fàtte woon naa tamit Mamadou Diop Decroix honorable député Mamadou Diop Decroix kon nag ñooñu ñoo sigil sa ànd sàmm jikko yi ñoom ñoo porté projet de loi mais am na yeneen plus de 40 députés dañ doon xaar projet bi ñëw plénière moo tax gaa yi def complot daal di ko galgal ah, léegi nag maa ngi jeexal fi imam Alioune Badara daane la fulla mooy jaay Dakar fulla mooy jaay Dakar de tey nag mbégte mu rëy rëy laa am ndaxte biñ fiy dajalee nit ñi ci mois de mai bennu génn tey lii nu am ful na ko ñett wala ñeent wala juróomi yoon kon wone na ni sénégalais yi am nañ pas-pas ci li ñuy def am nañ taxawaay ci li ñuy def kon nag maa ngi nuyu kilifa yi fi daje yëpp di ko teg ci loxo sunu coordonnateur Ababacar Mboup mu jàllale ko ci ñëpp ndax mu matale ndax te temps bi xat na te mënuñoo lim waaye damay wax ci turu ànd sàmm jikko yi nga xam ci laa bokk waaye di wax ci turu jàngalekat yi nga xam ni G20 dafa ñëw ak délégation ñëw wax Sénégal ni ñun li ñuy sàkk മുഞ്ഞു ക്രിമിനാലിസ് engordigante Senegal bu ko defee képp ku mi def yëfi góor jigéen ñu talal sa nuunara loolu la Sénégalais yi bëgg parce que nag réew mi ñun ñoo ko moom président Macky Sall donnu ko ci ay waajuram donnu ko ci que maamam kon amul droit kenn di fi def loo xam ne teguñu ko ci yoon document bii dans les pratiques de classe président Macky Sall moo ko bindulu ministère de l' éducation nationale Mamadou Talla ñu ànd ci ak plan international pour ñu lawal ngóor jigéen ci Sénégal pour ñu lawal ngóor jigéen ci classe yi kenn du ko fi nangoo kenn du ko fi nangoo tey kenn du ko fi nangoo ëllëg kon jàngalekat yi document bii ma képp ku mu ñëw sa école na nga koo xotti te sànni ca àll ba parce que jigéen du law Sénégal leen ko nga wax nag KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaax yu wóor te leer